بحق وجه الله مغفرة من جملة المناهي تبت له من جملة السخائر مع التبارك وما تاخر وما بينهما فهمني العلم وسني علما وحملا وأدبا وفهما ربي يكسف منافعا وجه الحياة من سقايا اكشف لي الأسرار والخوامد يا خير من كسر سرا حامدا لجمع جميع ما تفرق الأرض خطيمنا خير وصفي قلدا صبيا ربي بكل والتهس من قل عبلي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة عبلي كوني مثل كل من يقول وللسواء الرياء لما الغيوم الحمد لله الذي يجازي مثل من سدام جد ميتو نانا خلوم دفا سد تا لي دوتو كو باي موك ان شاء الله تا ليغي بي nga xamne yang koy ligéyal serigne touba ci dëkk bi jëm ci lotissement bi force de santé bi ak lépp loo xamante ne bi yaa ngi koy def ci dëkk bi maire wax na ko waxtaan na ci ak moom léegi fii ne na lépp loo xamante ne bii moom de mën na ko incha allahu rabbi dana ko def lu ko ci féete kaw war a egg ci président yi président dana ko yëg dana ko def nee na nga ñaanal njiitu réew mi président Macky Sall ca ñaanal ko bu ko fàtte ci ñaan ñaanal maire xam nañ ne fàtte wu leen dikk gii mu fi dikk nag nee na xolam dafa sedd tay ji xam naa ci dara programme am xat na lool mbuur la bawoo dam jógee mbuur ñu dem Touba Touba bañ fa jógee ñu jëm si fii Mbarasaan waaye dana bis bii du yónnee day ñëwal boppam bokk ko ak yow ba nga xam ne def na la ci boppam te wutul la frontière ci boppam nee na lépp loo nekk na ko nga ko jàppale taxawoo ko ci saayir ak ci baatin fee nga xamante ni mooy di maire ba ak réew mi ak boroom réew mi ak moom nanga nga ko ci jàppale ci saayir ak ci baatin ndax am na lool bëgg na koo liggéeyal Serigne Touba ca njaareem gee di mairie bi seex coroy maama seex coroog Balla coro Kumba tay ba di njabootu maam Mor Anta Sali mu fas yéenee liggéeyal Serigne Touba nag ci réew mi ànd koog président Macky Sall waaye ànd koog yow ndax xam na ne yow Mbakke ki la yar di Serigne Saliou Mbakke liggéey rek ko ñor ak jaamu yàlla ci nga nekk. moo tax nee na fas na yéene lépp loo xamante ne bii rek yaa ngi ci yëngu na ko yëg lim ci jot a yëg it dana ci ànd ak yow ba amee ko ni ko bëgg waaye nag di gërëmaat maire Ibrahima Ndour mi toog ndax taalube la as gor la ku nangu kilifa la lim koy mag mag mag nangu na mu yilif ko te nit nag soo amee kilifa dëkk bu mu séen dana fàgg waaye nit ku amul kilifa dëkk boo mën a séen da koy séen rek waaye doo fàgg waaye muy nit ku am kilifa kon Mbàkke foofu la ñuy wàcce sunu di la ñaanalaat nag di ñaanalaat Pape Fary Seye bu baax a baax. Mm-hmm. waaw foofu la ñuy wàccee sunu kàddu jërëjëf Mbacke jërëjëf. ah macha allah bu baax dëgg yàlla xam <laughs> la la andil. Tubaay borom alxuraan. nii la ko sëñ Bamba daan def di jël di ca kaw lal ba. parfum ak di tëdd ci suuf. sa maam ja sëriñ Touba alxuraan moo ko moom. xam nañ ko. amul lu muy ñor di amul lu muy am na bis sax bu ñu daan ba suñu borom dogal kon nag bu buñ ko doxalee nii nga ñëw ànd ko na yëpp war war na ni loolu ak cofeel la war na ni yitte la te bari na fii ci njaboot bi ñoo xam ni say nit lañ bu yàgg mbay mi ci ci ci daara ji la ne ay magam ak ñoom ñëpp ñoom wax na ma seenu xame bu yàgg ak ñu fi nekk ñëpp kon loolu suñu xol seet na bu noonu jën yitte joo xam ni sëriñ mm-hmm. fii la fekk booba ci suuf bi tool man awma koo xam ne dama koy jàpp ngir lenn li ma soxal ci lu jege ak ci lu sori mooy fi ma nekk muy dëkk bi ndax yàlla moo dogal fii keroog ñu ngi waxtaan nga waxtaanee gàtt gàtt xam naa béréb yu yaatu yoo xam ne suuf su yaatu la mi ngi ci ay këyit muy wetu Touba. muy buur muy feneen fu soob yàlla ci réew mi waaye fii nag la yàlla tànn ma dikk fi andi ma fi depuis deux mille neuf deux mille dix ci kanamu chef de village ñoom ñii ak seen taxawaay bu rafet kon fii rek laa am bi mu fi wut bi mu dikkee waxtaan ak man ma ne ko man benn yitte rek laa am mooy dëkk bi amaatuma benn yitte dëkk bi ak ñi fi dëkke ak ñi fi ak ñi ak tund wi ak tund yëpp mooy sama yitte moom mii jamono yi mu fiy door a dikk am na ñeneen ñu féete woon feneen man du ma politique. Mm-hmm. aw ma par parloo aw fenn fu ma féete. waaye nit eh, dañuy wax jote mooy jiitu. jeex na nit tey su fekkente ni am nga bis nga am ak njaboot ñëpp gis la fax danañ xam ne yow mii liñ bëgg bëgg la nga leen ko. su ëllëgee boo ànd ak ñeneen di wutit dana ñaa man day kama gis fa sama kilifa. Mm-hmm. ca wetam. la sama kilifa nekk mu nekk ci ak moom loola ñoom mën nañoo am seen yëgu-yëgu bopp mën nañoo am seen yitte bopp waaye man aw ma fu may féete aw ma fu may far am naa nag sama ñaan ku ma fekk ci béréb bii mm. gu may rafet njort nag lool lool lool jamono booba am na ku ma fekk fii ndax man nanguma nit di toog ci man di tudd nit yi ñu weesu fekkuma fi fekk ma génn la ko jiitu bi koy waaj am na ñu fi ñëw ku fi ñëw la ma lay digal moo di li ngay bëgg soo demee ca nit ña wax leen liñ bëgg la nga ca man waaye bul tudd kenn bul tudd ne diw defu fi lii wala defu fi yow kay wax li nga yéene nit ñi rek bu leen a doyee baax na ci leen doyut ñu xam ni <laughs> <laughs> moom mii jamono boobu am na ku fi ñëw mm. ne ma seen bi de diw nangam dama ne ko jógal ba mu jóg toog ma ne ko rombal génnal kër gi mm. daf ko sës ci man nag ma jagal ndax man bëgguma nit di tudd nit fi sama kanam loolu duma ko def xalaatuma ko du doon ci lu jege du doon ci lu sore moom mii tey lu ñuy man de waxtaane bu dikkee dama ko koy wax ba mu jeex tàkk du ko ci desal dara hmm. noonu laa mel loolu yàlla noonu la bind boobaa ak léegi mi ngi ciy def yitte benn yitte nag mooy bi am ci dëkk bi mooy lotissement bi barki dem biñ ci waxtaan waxtaan ndax fekk na bàyyi Fary yónnee woon naa ko ci góornóor góornóor waxtaan ci ak moom mm-hmm. ba wax ma fam toll yëpp mm-hmm. ba ne ba mu ne woon xay na bu fekkee dossier bi dem na Dakar lañ mm-hmm. ci man bu ma la waxee yow am na loo ma ca wax waaw loolu it bàyyi naa ko ci sa loxo nag ma ko waxee leneen la ca topp mooy courant bi mu yokk jëm fii gis nga lii woote wuñ ko tey suñ ko woote woon boo dikkee penc bi kenn du fi xaj nit ñi ci kër yi la ñuy yooyu dañuy soxla ñu am courant ba ci poste de santé ba fa mu nekk ndax man dama nekk nit koo xamante ni li état di def ci nit ñi man duma ca xaar kenn mm-hmm. suñ borom mi ngi may dimbali mi ngi may defal sutura mm-hmm. sàkku man fi ne man bu may tukki wutuma passeport diplomatique damay dem rangi ca ambassade yi ñu may ma visa ma dem tukki dem dikk manoon na maa bind na nañ may passeport diplomatique yàlloo naa ko war naa ko am wutuma ko fa de mm-hmm. damay dajale kayit yi ambassade yi laaj dem yóbbu ñu may ma ñaari at wala at wala yetti at ma téye soo bëggee dem dem soo bëggee toog toog te bi ñu mujjee ñëw jox tukkiwu ma ci fenn kon man amul lenn lu may laaj bu dee jiwu gerte la maa ngi ak sama jiwu maa ngi ak sama engrais fii ma toog di wax ak yow maa ngi sama gerte maa ngi sama jiwu maa ngi kon man la may wut mooy dëkk bi ak tund bi poste de santé bee ñuy defar noo ko tàmbali ba mel ne mu yegg kii jiw liñ la ci man moom laa jox ndigal ci ni mu àggale te la ma ca def lépp moo ma ko dàq man na lu man na lu kon loola noonu mooy la liggéey liñ soxla nag mooy dëkk bi lotissement bi ñu def ko ndax fii ne bu lotissement bi taxawoon na jamono yañ koy bëgg bu fekkoon tey taxawoon na dëkk baa nga pay ma nga ca lattari ba la ngay séen kon dëkk bi agsi na foofu te yaakaar naa ne état lim soxla mooy loolu ndax man fii bi ma fii dikk chef du village sa nii de ab dof la ma jàppe woon ndax booba sama kër ga ca Ndakaaru mel ni nii mu bàyyi ko fa kaasub seng bële ca laa dëkkoon fii luy xuy gudd dawoo ko fi gis dara luy xuy néew fi yàlla wax ni doo ngay lekk ci laay lekk te sama kër ga ca Ndakaaru kilim yaa nga fa frigo yaa nga fa lépp nga fa ma bàyyi ko fa ñëw fi ngir sëñ Touba di ko fi liggéeyal ñu ni sëñ bi damaa defen dafa dof li muy def ci àll bii te mënoon a wuti kër almadi mënoon a wuti fenn nangam ak nangam fekk ne lii la sëñ Tuubaa bëgg ci noonu lii lay wër ci noonu it moom mii tey bu ma yeexoon a ñëw ci dëkk bi dama koy fekk tuxu moom ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñëpp a doon dem tund wii mën naa laa wax ne bu mele nii mu mel ba des fi mbarasaan gi ya tax ak mën naa doon xudaa moo fi des si lii te loolu defe naa ne mooy li nga xamante ni suñ ko defoon réew mi lu ci bari mën naa jàpp kon liñ soxla mooy gannaaw lotissement bi ak yokk courant bi yoon wi mm-hmm. yoon wi xay na nee nañ natt nañ la tarit bi mm-hmm. ba ñoom ñu ngi ci waaye ñuulal gi waxtu foofu fu ci seen doole man àgg it mm-hmm. soxla nañ c'est Diourbel Barassa non non c'est la piste mooy fi ñuy jaar noonu bi ñuy ñëw y a une piste

Ah, courant bi fii waaw courant bi fii la yem waaye fi may wax sax xam nga lii dama fi amoon loo xamante ni fii ci quartier Manaarul Hudaa dañ koo nattoon noonu mm. taalibe ñëw dëkk fi fi may wax yow ñu taxaw soxla dëkk kenn xamul nuñ toll. kenn xamul nuñ toll. ñi ni tay seeni kër. defar nañ ko ba mel ni wara mel. ñu kër yi dakar yi ñu dëkk fi di fi dalal mbolo mu dul jeex bu tant gi jotté kër yi ko def nonu yëpp. bu ñu courant. loolu bañ sañoon. ñu yokk ñu duggal fofu courant bi ndax du bari xam naa ay ñaar fukki poto. c'est ça ak yu mel noonu. courant bi ñëw na sax ba ci buntu kër sëñ bi. waaw courant bi ñëw na sax loolu daal moom mooy mooy mooy mooy yitte ji yitte jooju nag mooy yitte askan bi ndax fi ne tey poste de sant bi yeex gi lépp tey ji bu fekkonte ni lotissement bi taxawaan na nëgë ni kenn waxatu ko waaw ni kon kenn waxatu ko ndax bu fekkee lotissement amagut te nit ñi dafa am luñ bindoo bu bu yoon wa daanaka mënu boo amoo yoon bu nawet jotee ñii dañuy bay bu wër ko ñee bay ñee nga ci ñee nga ca feneen loolu mën naa laa wax moo ko yeexal te fii ñu fi faju see ci doomu aadama mbooloo lañ ndax indi naa fi infirmier boo xamante ni tey mooy faj donga yi waaye boo xoolee tey parweer rek barki démb bi bi ma defalee bilan bi nga xamante ni gannaaw donga yi la ci dëkkandoo yi képp day ëpp téeméeri nit yu fay fajoo yu fay fajoo yu fay fajoo. téeméeri ñu dëkk si soxna Khady Gueye moo koy. le poste de santé fële. ubbi la déedéet moom ci biir kër la ne. Ah, waaye dañ ko aménagé. léegi nag dongo yi ko ci biiram di métti wala boppam di métti wala dara lu ci war moo koy def ba mu tëggoo ñu mu doon bind ma ne ko léegi nañ ko yóbbu ci tali bi ñu nekk Touba ay médecin nga fa wala wala Diourbel. Hmm. waaye nag waaye dëkk bi hmm. ku ci bopp metti wala dara dal la da ngay dem ca moom moo lay xool seetal la ba keroog mu cee tëli moom ndax moom hmm. infirmier soins yu njëkk mën na ko waaye li muy jot ci ay nit par weer rek dana ëpp téeméeri nit léegi gannaaw du poste de santé boo xam ne da ngay ne maire defalal ma niveau état defalal ma ah, ñu koy mën a defal ñu ngi fi li ñuy soxla rek mooy lotissement bi mën a taxaw yoon yi mën a taxaw ba loola ñu mën caa jublu bu wéy hmm. mooy li ko am sax ba ndox a laal suuf hmm. loola moom ñu mën a samp bor na ci na xam fi nga war a yem ak ni ñu war a doxalee hmm. gannaaw loolu rek ah noo ngi lay sant noo ngi ñaanal njiital réew mi it ah yàlla dolli leeral xelam leeral ay xalaatam lam yéene ci réew mi ci jàmm ak tawféex ak sutura tamit njariñal bindeef yëpp yi yàlla defal ko ci ci mbaaxu yàlla ay yërmandeem ak tawféexam yow it sant nañ la bu baax ndax lii nga def day lu sedd sunu xol jàpp guñ amoon ceew nag yokk na ndax fii moom ku nu fi fekk duñ ko yemale mukk ku fi fekk loolu xam naa ne mbokki taalibe ah, feeñal suñu mbég ndax tey dafa yàlla nu mbég bég ndax sëriñ bii toog kenn ku ne xam na ne fu waay cosaanoo boo sañoon defar waaye defar yombut kon yàlla wërsëgal nu ko mu ñëw wax nga ko léegi yóbbu nu foo xam ne. يالا رك موكو خم تي موم رك مونو مانا فاي مونو كو مانا moo nu ko mën a fayal يسرني الحسر كما أهواه بسر لا إله إلا الله على النبي المصطفى يلا صل لا إله إلا الله صلاة مؤمن بسلام الله بسر لا إله إلا الله وحبلنا نور على نوري ولي حبس هذا الدارين